ñaar fukki candidat ñoo nar a jongante ci élection présidentielle yu 2024 yi mu nekk loo xamante ni bu ñu sukkandikoo ci kàddu journaliste yi nekk ci rédaction yi du nekk lu yomb waaye dinañ def seen kéemtulaay kattan ngir jaarale liggéey bi ci yoon 2019 gisoon nañu cinq candidats la ñu amoon liggéey journaliste yi yombul woon 2024 bu ñu ñëwee am 20 candidats c'est vrai que oui liggéey journaliste du yomb mais mentalement nous en tant que journaliste je pense que war nañu préparer wu ci loolu préparer wu ci quel qu'en soit le nombre de candidats l'idéal li ñuy li ñu soxal du nombre de candidats mais li ñu soxal mooy information bi ñu war a jox askan ni campagne bii ñu jëm campagne bu doy waar la vingt candidats na mais ñun ñoo mën a aider électeurs yi ngir ñu def tànneef bu gën ñun dinañ ci def ab bulletin di topp information yi. liggéey ñi nga xam ne ne ñooy candidats yi seen de communication yi ak tamit ñi nga xam ne ne ñooy waa CNRA là pour mën a euh, véhiculer euh, ku nekk euh, sa message ba nga xam ne ne tey jii dinañ ne ne ñii di taskatu xibaar yi méngale nañ ñëpp tolle na ñëpp ci wàllum information. jiitu convention des jeunes reporters itam mu ngi ñaax journalistes yi ngir ñu gën di caytu information yi nga xamante ni moom la ñuy jàllale. campagne électorale warul doon période bi nga xam ne dañoo jàpp ni dañoo war a salfaañee ak ak yéleef wala lépp lu soxal suñu métier non non non ñun dafa am lu ñu tënk les fondamentaux dañ ko war a respecter vérifier les informations lu mu xat-xat jarul njëkkante ni ñu jël suñu temps bi parce que tamit discours yi nga xam day xaajale réew politique yi nga xamante ni dañu koy nemmeeku. du yomb nag ci wàllu politique yi euh, le plus souvent ñoom dañ cay daal di def mais ak lépp lu muy mënti doon je le dis encore une fois euh, que nga nekk xaritu politique wala nga ñàkk a nekk xaritu politique que nga am tentative wala nga ñàkk am tentative l'idéal c'est justement donc nga bàyyi sa xel ni am na ñoo xam dañ lay bàyyi xel tu n'as pas droit à les trahir. nga euh, kër yéen kër liggéeyukaay yi maanaam média yi ci ñoo war a jël ay moyens yoo xam ne ne jox ko ñi nga xam ne ñooy reporter yi à telle enseigne kenn du leen a jéem a ger ci lépp nag. période campagne électorale boo xamante ni narul yomb ci ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi waaye li ñuy xamle mooy dinañ def lépp li war ngir jaarale lépp ci yoon